Baada ya ama vyama ne maam teel a jour magal. waaw mbégte bi teel a de. mbégte bi teel a. waaw. ñu bëggal rek bëggal sëñ bi. bëggal suñu bopp. bëggal mbokku taalibe yi ah ci barke Cheikh Abdoulaye. incha allah. mais royal royal doy bi ndekki bi mais la sax nag fat mu ngi mel ne yéen a doon xaar pour ñu ah, man xaritu journaliste yi ak ak ak ak animateur yi. ñu ne ubbi bu fekkee. yéen yéen a tax. ah, ah kon nag toog leen te si ah, ah lii mooy belel. fii belel la. belel sëñ Abdou Lahat dafa jëloon màggal gi naw ko lool. am fu ko teg ñu ñu bëgg jël màggal gi tàmbali ko ren. Mm-hmm. jëm déwén. Mm-hmm. fii loo yaakaar rek xeeboo ko fi xeebuñu ñu gileem nawuñu ginaar lépp ciy dem lépp a ngi ci. waaw ah, parce que yow moom kenn naa naatable set diggante ak Serigne Touba kenn dootul naatable sa diggante ak ñi nga moo tax it tey fii nga xamante li ñu gis nii duñ ne duñ ne gulet. taalibe kese laa bëgg a doon waaw duñ mën nañ ni safar gi sax ci sap waaw. taalibe kese laa bëgg a doon man képp koo xamante ne xool naa sama diggante ak yow ngay xool ni sëñ bi. am na dara loo ciy sikki sàkk dootuñu dox mën a jël maître man sëñ Touba rek laa xam man mhm. damaa judd doon murit màgg doon murit màgget doon murit bu ma deewee murit laay doon bu ma dekkee murit laay doon ëllëg yow mal xiyaam bu ma dekkee ba daw làqtu ci ginnaaw Cheikh Abdoulaye mhm. bu ma nee du wax du ma laaj kan nga mhm. ndax xam na ma waaye dama naan ko murit dong la saadix laa bëgg a doon saadix <laughs> jërëjëf jëfi jëfi Sadio la <laughs> macha allah waaw ba tey gis ngeen ko li nga xamante ni noonu la def ci li nga xamante ni moom mooy gis nga safar fallu fallu fallu fallu lii doy na waar des fois ñu ne la non non ëpp na tool la tool la mais boo ko xoolee xam ni la lu lu lu jaadu la parce que lii la Serigne Touba woot ci li nga xamante ni moom mooy gis safar bi parce que leen santale ma ki nga xamante ne mooy suñu borom ci départ bi nga xamante ne maa ngi ko doon def fii dëgg nañ ko li nga xamante ne moom mooy ci ko xamante ni tey départ leen tey bu fekkoon na nga xamante ni dañ koy ah, ah, nga xamante ni ci terle Fall Ndiaye ndékki yu baax ñu jël ko interview moo tax tey man nag sama gars yi ñu ñëw waaw non non di ñëw naataango di ñu àndal tey di soo moo taal oto <laughs> indi ñu ah, dugal ñu sedd ah, jox ñuy sedd neex yoo xamante ni macha allah daal yooyu ñu la ciy remercier di nuyu sama copain Waly mm-hmm. waaw ba benn bis nga xamante ni moom ak fii ci Belel. kër suñu maam euh, Mame Diarra Fam léegi waaw mais waaw tamit gis nga yi nga xamante ni moom la ñu fekk mu nekk lu rafet loo xamante ni kenn dootu ko naatale ci yoonu murit gis nga ñëw nañu accueillir nañu ñëw nañu mu waxtaan ak ñun ne ñu yéen man samay xarit ngeen yéen journaliste yi waaw dafa mel ne yéen la doon xaar pour ñu commencé nga xam ne moom mooy jikko bi ah tey ñii rek la mën a a dem murit mm-hmm. murit teraanga murit

loolu sama yaay lu koy daggee. comme ni lu si gën li muy def nii. waaw xam nga rek. daa amaat italien bu ndaw waaw Aïcha kon ñu def nii daal di jokkati tuuti daal leen di bàyyi ngeen ñëw ah. ah xar bi moo ngi mel ni daf may wax ni ma bul ma njëkk a tàgg de mais dinaa la njëkk a tàgg ay ca bisimilah ñu dem laal i tax la ah lii ñu def goosu nag ayca bisimilah. ku a servi. ku may njëkk a premier plat. ayca bisimilah. mère baa noonu. merci beaucoup à vous. merci beaucoup. ayca lekk leen.